bisa, maa ngi jël maa ngi jël ndax moo ko sànni bi maa ngi waa jël naa ko mais sax bisa leer na kay bisa bi ngeen koola ngeen la moom nooy li saa moo ni sama dooral ay jom mbër régulé régulé en arrière am doole am doole pneu yi ak pneu yi ay mu neex ger bi golf 2 bi waaw mbokk yi gis ngeen lii moo xew Kër Massar gis ngeen actuellement nii euh, gis ngeen actuellement ni muy force de l'ordre yi nga xamante ni actuellement ni gis nañ ñi ni ànd ak euh, ñi nga xamante ñoom ñooy population Kër Massar parce que tey euh, comme ni ngeen ko xamee nag ci manifestation bi nga xamante ni moom la Yewwi Askan bi wax fépp fi nga xamante ne mooy fii Sénégal gis ngeen actuellement ni force ak saxaar si nga xamante ne yéen a koy gis mbokk dina wax ne rek Kër Massar actuellement ni mi ngi tàng jër jër jër jër jër jër gis nga leen gis nga leen ñi nii taxaw force de l'ordre yaa ngi nii taxaw di dóor seen euh, grenade lacrymogène yi waaye ba tey gis nañ population bi ñi ngi taal pneu yi actuellement daal li ngeen si mën a dégg mooy Kër Massar actuellement ni tàng na jër jër jër jër jër jër jër jër jër mu nekk loo xamante ni lu doy doy waar la lu doy doy waar la lii nag autorité yi war nañ ci wax li autorité yi war na war nañ ci wax ndaxte nekk na loo xamante ni gis nga actuellement ni jaaykat yee fu mu ne seen liggéey yëpp yàqu na ndaxte waa ji moom euh, grenade ak ramazanam la yor rek di sànni rek di sànni rek mu nekk lu doy doy waar dinañ wax ne rek yéen a ngi en direct fii ci Kër fii ci IMTV gis ngeen yéen a ko gisandoo nag mu nekk loo xamante ni affrontement la bi nga xamante actuellement ni tàng na jër fii ci